parce que dem nañu fëgg buntu yëpp di fëgg buntu autorité pour ñu ñoo jappalé ñu ñu mëna fexé ñu résoudre problème boobu waye tay benn autorité wuñu au moment où tay ñoom sen dom yaangi ni di dund ci ay jafé jafé yu metti ñom ñoo ngi fé di campagne di jël xaaliss bi di passer pasar di def ñenn ñi di jël di mayé fenen alors que xalé tay ñoo ngi fé amna ño xamné tay ñi ngi fanaan ci mbedd yi loolu mu nekk lu ñaaw lo xamni ñu ngi koy naqarlu te di rafetlu ñu ko dara dara aussi maire yi nekk Thiès ñu mën a jàppalee mooy juste ñu ñëw wutal ñu ay logement comme yeneen suñu yeneen camarades yu nekk yeneen localité nu ñu leen koy defalee tey am na yenn ñoo xam ne xaaruñu sax seen mairie du leen ko defal mais seen doomu dëkk ñoo leen koy defal ñoom sans pour autant ñu xaar ci mairie ñun tey dafa lii dafa ñaaw trop nga xam ne tey am say frères yu ñëw doo am fenn foo leen dugal ngay dem say yeneen camarades yi nekk ci yeneen localité yi naa leen ah sama waay dencal ma ñii fii nii waay ba ma ñëw xool na ma leen lijjantilee alors yow tey say autorité war nañoo mën a taxaw dimbali la defal la lool tey ñun ot Thiès fii nii ñaata autorité yoo xam ne lañ fi am yoo xam ne mën nañu defal loolu fajal ñu loolu sans pour autant tey ñun ñuy ñëw tey taxaw di fi ñaxtu amuñu fa benn benn logement benn logement bi ñuy wax ni amuñu ko daaw rek lañ ñu génnee fii nii loolu te lool dafa ñaaw ñu pakete suñuy bagage génnee ñu ci mbedd yi ñu taxaw fa noonu alors am nañ fa ay suñuy nawle te loolu dafa rafetul trop boo tawee dañ naa la yéen étudiant Thiès waaye lu mel ni Thiès amoon sax logement te loolu dafa te ñu ngi koy ñaawlu trop amel nañu subvention at mu nekk te war ñu koo jox war ñu koo jox mais moment bii nii ñu ngi ciy daw te jotuñu dara aussi loolu tamit nag ñu ngi koy fustiger di ci woo meer mu ñëw jàppale ñu ngir yàlla ak autorité thiessoise yëpp nag bàyyiñu ci kenn ñëpp lañ ciy woo ñu ñëw jàppale ñu te xam ne ñun sonn nañ tàyyi nañ chaque fois chaque année ñu ñëw même problème boobu mooy posé wu te la ren nag dañoo jog taxaw tem pour fexe ñu résoudre problème bi benn yoon nga xam ne dootuñu amati benn benn problème bu ñuy wax muy waxi problème logement nga xam suñu frère yi di ñëw ëllëg wala ñeneen ñi war a ñëwaat beneen bureau bi fi war nekkaat du jànkonteel ak du jànkonteel problème bi ñu am nii ñun ñii tey instant yi ñu yaak nañ plus de 3000 étudiants yoo xam ne ay Thiessois lañ fu ni ñoo ngi war a recevoir plus de 200 nouveaux fenn fu ñu leen dugal fu mu ni ñun dañoo mujj suspendre suñuy cours bàyyi ñuy def suñu cours yi fii nii fexe nu ñu xoolee nu ñu résoudre problème bii nii alors que am nañu ay examen ay devoir yeneen yu ñuy xaar foofu mais dafa tey dafa nekk leen loo xam ne problème boo xam ne daf ñu ñor suñuy frère ak suñuy sœur ñoo war a ñëw te xamuñu fa dara ci université ñu ngi fee soog a ñëw ñun ñu fa nekk sax jun d'ailleurs ñu mën nañ wax ni genre mën nañ ko euh, comprendre ni xaw def nañ fa ay at mun na ñëw dëkku yéen yi mais ñoom ñii di soog a ñëw mënuñoo dëkku yéen yi te eh, problème bii ñi tey tax na ñu bëri tey jaaree fa bàyyi jàng problème logement bi tax na ñu bëri tey ñu bàyyee fa jàng ñeneen ñi ñu nii redoubler